bismillah bismillah inna wali yàlla asalaamaaleykum axlu lam seen doom day organe borom yéene kaay mu ñëw indi leen suñu lam vendredi 7 août 2020 gros titre nii la demee école de lutte Balla Gaye wàññeeku nañ de wàññeeku nañ doole bi ñu amoon daaw wàññeeku na lool lool lool moom mu a jëflante kii di Balla koy artu de ma ngi koy artu bu baax a baax la demee troisième ñu dem fenêtre nu mu koy defee saa su ñu ne moom Balla Diouf ma ngay artu de kii di Gris Bordeaux nee na ko sa combat ak Balla Gaye soo ko waajul ànd si ak say mbokk ah soo ñëwee mun nga am combat bu la gën a métti sa carrière waaw moom lay njaay ñu nag deux journées la ñu bi ñu génn de deux journées yu saf sap sap fi saf sap nag du fenn fudul fan fële nga xam ne moo sa jom Iba Mar Diop dañ koo teel a tëj de mais treize journées lañ fa amal de treize journées yu saf sap quatrième page ñu dem Gris Bordeaux le troisième Tigre de Fass Gris Bordeaux doomu cekki bi moom Gris Bordeaux moom mais suñu lam mooy wax ci moom de nañ Gris nag ñetti atu am de si combat di di bagaar bi ñett yooyu na a utiliser pour jëflante ki nga xam ne moo di le lion de Guédiawaye di na combat amateur yi Liss Ndiago xale ak jàmm gën moom Liss Ndiago moomee xale ak jàmm ak kan caatu rëbës doomu rëbës ñu ne ko combat boobu taxaw na de moom jëy production nag moo fa jaar ñaari xale nag yu nekk ci yoon jëm pour bëgg a dem ca kaw cinquième pas ñu dem. général Malika ca Malika moom mooy wax de di artu kii di adversaire am di fils de balle nee ko dama bëgg nga xam benn affaire man ba ma ñëwee ci làmb yàggul de déedéet yàggul maa ci douze combats neuf victoire trois défaites su su kër laa mujj di géejawaay muy mbaytin numéro deux moom laa fa mujj jàpp defaral ko dugaat ne waat sarax biir géejawaay jël la yow fils de balle non yow munoo ma téye munoo ma téye dama bëgg nga xam ne sama yoon yow munoo ko arrêté déedéet te bis bu ñu jëflee de di nga Quench le messi de l'arène Mbëru Laay Njaay moom Quench moom suñu la may xam wax ci moom de ñu ne nag mu nga jëm nag ci combat bu doy waar combat bu jéggi daye diggante mag Double Moteur loolu waral moom Quench moomee li ko war nag du dara lu dul ut doole bu baree baree bare ut nag énergie bu baree bare pour mën a jëflante ki nga moo di Double Moteur septième pas ñu dem école de lutte Balla Gaye ñu ne wàññeeku na de wàññeeku na de progression ba nekkoon daaw wàññeeku na lool lool ndax saison ren ñu si sept victoire huit défaite ñu ne école de lutte Balla Gaye 2 moomee wàññeeku na moom Balla Gaye 2 ah, nekk moom ndaraan bu paan kenn chien bu ko dépanne wër de pour mun a commencé aan nag def li xam mu de ay ravage bu dee les deux moomee nag ñu ne les deux nag moom kenn dégg ko kenn gisu ko tegalee de cinq années blanche moom Lamine Golo di coach ba mooy wax de nee na nag dama am lu ma métti lool dama am lu ma naqari lool ndax suñu làmb door bi dama bëggoon évoluer Balla ma téye euh, moom Lac de Guiers ngi noonu de mbër espoir nag mooy fëgg buntam ubbi na ko moom Lac de Guiers 2 ma nga wax nee na ko booy bu ma kenn fëggati ah a ñàkk combat tax may jël benn espoir VIP laay bëreel ñoom ñëpp maa ngi toog di leen xaar ku pare sa combat ma jël la jëflante kaay tey maa ngi koy may suma jigéen suma xarit siga jonn siga bu tafaatin borom xew xew làmb jëlal yaay borom seen doom day organe moo fi jaaroon dem naa salaam